leen a fal ci bopp réew mi ngir ngeen jéem a ay saafara ci dundu gu cher gi waaye faluñu leen ngir ngeen di amal ay combat yoo xam ne rek dafay dénigrer diine ji Moustapha Guirassy di ko tontu ci biir yëglekaay bi ne ko ñu nit li ñuy xaar ci ab abbé mooy mu am comportement sérénité dal ba noppi am diine di yëkkati ay kàdduy sell Imam Kanté daal di koy feelu ne ko abbé Latir Ndiaye mi dafa manqué de respect premier ministre bu Sénégal enquête yëglekaay ne ko coowal muuraay gi daal moom yëkkati na fi waat yoo xam ne xam nañu fu mu tàmbalee jamono ji nag kii di Abbé Latyr Ndiaye ma ngay génn di dal ci ko premier ministre bu Sénégal fekk Guirassy ak ñeneen ñoom ña ngay tubayul Ousmane Sonko yéenekaay bi di peeko dialogue de sourds boo xam ne rek ba moytuwulee mën naa jur musiba ci biir Sénégal Vox Populi moom itam xëyee waa jàngu bi ne déclaré nañu geer jamono ji nag kii di Ousmane Sonko ginnaaw génn gi mu génn nag di xam ne ne bëggatul dégg ñuy tereeti ab muraay ci biir bërëbu jàngalekaay yi laa séglekaay yi ne ko ab lettre moom la ci Abbé Latyr daal di bind jëmale ko ci Ousmane Sonko di ko tontu yëgle yéenekaay bi ne conseil national du laïc nag fi mu toll nii nag ña ñaawlu loolee nga xam ne rek dañoo jàpp ne ay kàddu yu ñàkk warma la yu premier ministre bu Sénégal yëkkati jëmale ko ci yenn l'école catholique yi nga xam ne rek moo nekkee fii ci réewu Sénégal Le Quotidien yëglekaay ne ko coow li kay fi mu toll nii nag mi ngi wéy ginnaaw discours bi nga xam ne rek moom la Ousmane Sonko yëkkati woon jëmale ko ci wàllu muuraay gi ñuy tere ci biir l'école privée catholique yi waral ba conseil national du laïc nag xam ne ni bëggatuñu dégg lu ñu mel ci gémmiñu Ousmane Sonko Moustapha Guirassy ne daal yéen a bëgg jël wax ji rek yóbbu ko fu mu yegglu waaye Ousmane Sonko ay kàddoom amul benn stigmatisation bés bi le jour ne coowal voile jamono ji nag nee na kur ci biir Sénégal ab piqûre moom la abbe daal di amal jëmale ko ci ko Ousmane Sonko moom abbe Latir Ndiaye ma ngay xamal Ousmane Sonko ne ko soppil anam bi ngay doxalee lu ko may di nga ñàkk lu bëree bëri monseigneur André Gueye moom itam feelu ko ñaawlu kàddu yi nga xam ne rek moom la Ousmane Sonko yëkkati daal di koy jëmale ci ñoom moom moomee nag ma ngay xam ne ni élimaanu joriñ bu Sénégal daf leen a Moustapha Guirassy ni leen coow li daal coowal débat de règlement la waaye du coowal juma du coowal jàngu bi te man nag maa ngi ñaaw lu tontu li nga xam ne rek moo bàyyeekoo ci abbé André Latir Ndiaye turbine yëglekaay ne ko abbé André Latir Ndiaye day dal na ci kaw Ousmane Sonko de dal na ci kawam bu baax a baax maa ngi koy xamal daar ci biir yëglekaay bi ne ko yenn kàddu yi yenn loxo yi ak yenn pantalon yi nag doonut ñoom ñooy amal ay combat yoo xam ne rek dañu koy jëmale ci yoonu yàlla yarul yow Ousmane Sonko te nga ànd ak diplomatie waxtaan ak ñun ci dal ak teggi doxinu génnal ci doxalinu opposant bi nga nekk bën a gën si génnal ci gat sa gat sa gi nga xam ne rek moom ngay doxee ci jamono ji bàyyeekul Ousmane Sonko fireekul ci li nga nekk lekkool catholique bi ñu nekk nag kenn du ñu ci fekk rek di ñu jàngal ni ñu war a doxalee ci wàllu diine ji l'observateur ne moom fi mu toll nii nag sagar mi ngi xeeñ ci biir réew Sénégal danger bu mag a mag mi ngi ñuy yoot ndax génn googee son Sonko génn ak tontu li nga xam ne rek bàyyeekoon na ci waa jàngu bi coow loolee mu ci jur ak fitna gi nga xam ne rek boo moytuwulee mën na koo yee loolee lépp yëglekaay bi dellu na ci yi di soññ nag ngir ñu moytu ndax conflit yi nga xam ne rek moom la ñuy faral di gis ci àdduna wërngal këpp lépp mi ngi juddoo ci coow yi nga xam ne rek dafay dox ci diggante diine ji ak ci diggante waaso yi laa séglekaay xëy àddu jëmale ci leneen mu soxal ba tey Ousmane Sonko ak yorin wi nga xam ne rek jàpp na ne yorinu bon la fi régime bi fi nekkoon yoree woon Sénégal élimaana joriñ bi Sénégal yéenekaay bi ne ma ngay yokk ay menaces am lay fa yëglekaay ne ko ci ab dëkk boo xam ne rek dañu ko ruiné moom la ñu fekk ci réew Sénégal Ousmane Sonko ma ngay tuumaal Macky Sall ak ñoñam biir yëglekaay bi nag na dañoo fekk ñu caxat-caxatee alalu réew mi du dërëm bu gën a tuuti boo xam ne rek fekk nañu ko ci bopp Sénégal suñu cee laral gi ñu nekkee nag war ngeen a xam ne li ñuy def jamono ji nag mooy liggéey bu ko defee ñu mën a def état des lieux xamal askan wi situation bi nga xam ne rek moo xew ci biir Sénégal bés bi ñu ci noppee nag daa ñu leeral askan wi lépp ba mu leer ci seen bopp dinañ leen xamal nag régime bi fi nekkoon lépp lu mu leen mësaan di nëbb rek ak conséquences yi nga xam ne rek moom lañ ci nar a dund dinañu démarrer ab liggéey bu am solo boo xam ne dinañ ko amal koy jooyantiwaat Sud Quotidien ne ko situation socio-économique bu Sénégal kay Ousmane Sonko ma ngay def ab diagnostic nag ma ngay xam ne ni daal fekk ñu ci bopp Sénégal lu ñu mel nag di ngeen ci xam ci fan yi ñu jëmmal 24 heures yëglekaay ne bi nga xam ne rek moom lañ doon màggal doon ca saxal garab Le Soleil yëglekaay xëyee ci bëccëg boobee xam ne rek ko doon amalee ca Touba yéenekaay bi ne juróomi million ci ay garab nag daal dinañu koy jëmbat ci bi Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké garab nag doon na recommandation bu am solo foofee ca Touba te Touba ca kanam nag lu ñu mel ab modèle la ci Sud Quotidien ne ko lancement journée nationale bi jëm ci wàllu saxalub garab ca Touba nag foofee la ko njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Faye doon amalee ma ngay soññu askan wi nag ngir lu ñu mel ñu daal di koy wëyal addu jëmalee ci jafe-jafe yi nga xam ne rek ma ngay tàmbalee yoot presse bu Sénégal Walf Quotidien xëyee tey jii ci dakkal gi ñu dakkal quotidien yi di stade ak sunu lamb Mamadou Ibra Kane moom ma ngay ñaawlu ci biir bi dàq gi mu nar a na yëglekaay bi di stade ak sunu làmb nag ma ngay annoncé licenciement bi nga xam ne rek moo soxal personnel bi bés bi le jour ne ko crise bi nga xam ne rek moo am jamono ji ci milieu presse bi nag stade ak sunu làmb ñoom la ñu njëkk a bi ci ab lakk-lakk goo xam ne rek ma nga xewee ca diwaan bu Tiwaawoon ba juróomi taalibe ñàkk seen bakkan liberation ni ko lakk-lakk googee nag ma nga xewee ca kër Malamine juróomi taalibe ñoo ñàkk seen bakkan maître coranique bi nag jamono jii teg nañu ko loxo kilifa yi fi mu toll nii nag tàmbali nañu nag ab recensement boo xam ne rek dañu koy jëmale ci daara yi mbokk